téléspectateurs à nak c'est une émission apostrophe euh, nouveau numéro euh, nak euh, apostrophe xaw génn ah. nga village de Tougouni li ñu si def nag mooy seet benn euh, homme politique un parti un président de parti politique bu ñuy wax le parti en avant euh, ñu gën ko xam ci Papa Birame Ciss def naa ne tur boobu bon ko déggee euh, commencé na booy si nopp nit ñi ci ay actions yoo xamante ni mu ngi koy def à travers le Sénégal ci yi nga xamante ne ay mouvement social la mais également ay activités yoo xam ne da ko def ngir jàppale li nga xamante ne mooy jël yi muy ay activités de développement te nag ñu fas yéene c'est que moom laa jël tontu ci tolluwaayu réew mi waxtaanee ko mais également xam li nga xamante ne euh, mooy en avant nan euh, lan lañ ko sosee ak ci lan fan la jëm exactement parce que tamit defe naa ni euh, naatable woo leen ci lan la ñu jëm exactement donc loolu yëpp day tax tey ñu tekk suñu plateau ngir yaatalal moom bu baax a baax bu ko defee ngeen xam kan mooy nit ki ak lan mooy ay mébétam ci Sénégal li ñu def rek mooy bàyyi ko mu tontu euh, li bokk ak yéen ba pare boo ko defee ñu soog mu ci li nga xam mooy laajee tontu yi euh, Pape Birame asalaamaaleykum. waaleykum salaam Mouhamed. ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar. Mm. di nuyu téléspectateur la 2STV. Mm. di bu baax a baax di leen wax asalaamaaleykum. Mm. di nuyu aussi. Euh, suñuy militants ak sympathisants ñi nga xamante ne ñoom ñuy suivre à travers euh, votre chaîne voilà mhm. euh, voilà euh, merci nuyoo bi defe naa ni matériel la ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax également ci daal bi ñu dalal ci sa biir màkkaan ngir ñu amal fi nga xamante ne mooy émission apostol maintenant dañuy def rek mooy soobu ci waxtaan alors da nga jékki-jékki créer le mouvement en avant

ci xelaat yi xelaat su rafet yi ci lay soog a jub ñu ne pourquoi taxawal benn parti benn parti politique voilà parti boo xamante ne dina am différence ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk donc boo gisee man dina am différence ak euh, parti politique yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk mm-hmm. déjà ñun adhésion euh, accepté nañu des adhésions voilà donc boo déggee man la adhéré woon nit ñi ñun faale wuñu fa nga fa mhm. foo mën ci bokk ñun loolu dérangé wuñu mhm. l'essentiel mooy nga jëm bi ñu jëm rek moom la ñu mais président est-ce que loolu aussi du euh, maanaam rek euh, pour mettre nit ñi ñu ñëw parce que euh, ñu bëri dañuy créer parti mais bu ñu xuusee dañu naan non dañu bëgg li woon woon ni mais bu ñu ba si biir ñu gis ni daanaka la fi nekkoon moom la ngeen tam di kon nee def est-ce que nekk nekkul da ngeen di meeb gaay rek moo tax ngeen naan dañoo bëgg def li voilà gis nga gis nga Mohamed mhm. politique bu Sénégal dafa toll foo xamante ne léegi kenn mënul nax kenn. te loolu noonu. Hmm. Sénégal foofu la toll. je vais donner je vais exemple bu terre à terre. Hmm. tey le jour du vote. Hmm. yow mën nga jàpp ne damaa ànd ak damaa ànd yow. mais gis nga su ma ba isoloir ba. yow ak yàlla kese ñeen na fay ñeen a fay nekk foofu noonu nit ki mënul wax ne diw laa votel mm-hmm. na ko wax nii mm-hmm. mais yow ñu koy wax yow mënoo am assurance ne noonu la noonu la demee donc du coup yooyu boo koy gis boo bëggee boo bëggee liggéey te liggéey rek tax laa jóg yooyu noonu pour man da koy jël tege de tege de côté moo tax mën leen ñun amuñu xaj bi amuñu seen fu waay fu waay fu waay jógee jëmal lu ñu jëm rek jëmal la projet que nous que nous avons dañoo loolu rek la ah. mën nga xëy daal ne euh, léegi parti bi euh, am bi naa ko mais dama koy tuddee en avant lan ma waral tur boobu en avant nga voilà. booy xool parti politique yi ki nekk. Hmm. appellation bi day gudd. aaral fii def lii fii def man pour man loolu amul njëriñ. Hmm. la mu am njëriñ wut lu wut lu gàtt. Hmm. en avant a dem ci kanam. loolu tax ñuy sonal say bopp yi. képp ku xëy rek da ngaa dem ci kanam. Hmm. moo tax ñu ne nañ tudde en avant c' est très simple. Ah boo xoolee boo xoolee au niveau au niveau du logo. Hmm. mën nan laa mën nan laa def j'ai écrit à la main hmm. en avant. absolument voilà soo xoolee logo loolu picc bi téye noonu ci tànk bi. loxo laa ko bindee en avant. pare naa ci jarul aaral jarul ci parce que affaire bi gëm-gëm la. li gëm. boo ci nekkee je pense que yàlla da lay yàlla da lay jàppale te ñun loolu la ñu jëf. Hmm. loolu rek mu waral en avant. alors fu tur bi jugee en avant boobu fu mu jugee nan nga ko xalaatee yow yaa ko xalaatal sa bopp ou bien dañ la ko jox. Hmm. Euh, fan la loolu jugee. damaa gis ne activité ñuy dox. Hmm. lépp dañoo bëgg mu jëm mu jëm kanam. donc jarul chercher de midi dans l'après-midi. voilà moo tax ñu ñëw rek ñu ne en avant. na ci kanam. jëm ci kanam voilà. alors mouvement ban année nga ko créé. Le mouvement, euh, nous a créé en 2017. Mhm. Mais comme nous le faisons, des mots ont été nommés, des mots ont été nommés, des mots ont été nommés, voilà au niveau des au niveau des régions au mm. niveau des départements au niveau des communes et ceci noonu la ñu doon def di ko installé ndànk ndànk ndànk mm. ba boy, euh, ba booy seet le neuf juillet bi passé mm. la ñu soog a def la ñu a def lancement voilà alors euh, yaa ngi wax léegi dañu def installation progressive dans les régions Il euh, yaa ngi wax léegi dañu bëgg a def ñun lu wute ak li nga xamante ne mooy li am ci yeneen parti wala yeneen mouvement yi alors Euh, yow defe naa ni euh, yaa ngi doon expliquer ni da ut li ñuy wax ay responsables régionaux mm-hmm. wàcc ci kii ndax mën nañu expliquer tableau boobu ak lan moo wara a processus boobu. Mm-hmm. voilà xam nga politique. Mm-hmm. même bu mbaay yi gars yi di def. woote fii daw fële joxe set fii man même loolu dama koo contre. xam nga politique lan la organisation la. gis nga boo xasee ba def sa organisation bu taxaw. nga organiser wu. Mm. loo bëgg a jàllale di ko jàllale réussite boo bëgg a am di nga ko am man organisation laa gëm. Mm. dans toute chose il faut s'organiser. boo organiser woo rek li nga bëgg da nga koy da nga am. Mm. la preuve en est que tey on est organisé pour ñu mën a dérouler vidéo pour ñu mën a dérouler émission bi. voilà pour ñu am réussite foog organisation am. moo tax ñun ñu njëkkee njëkkee foofu noonu. mooy samp li nga xamante ne mooy euh, ay responsable régionaux mooy ay responsable parce que euh, politique. ki nekk ci kaw bu amul luy téye ci suuf day yomb day yomb daan ñu bari bàyyi wuñ ko ñu bëri bàyyi wuñ ko xel gis nga ki ci kaw ñi mm-hmm. ci suuf ñoo koy conditionné te ñu bëri bàyyi wuñ koy xel ci politique moo tax ñi ci suuf dañoo war a am fulla fayda seen bopp mhm. voilà alors bi ngay tàmbaleeg léegi yaa ngi koy wax action yu bëri na defe naa ne am na yoo xam ni bu ñu duggee ci internet mhm. gis nañ ko mhm. euh, yan activité nga defagum au sein du euh, du parti pour mun koo mun koo doxal voilà mooy li ma la wax mooy li ma la wax sànq le mouvement en avant laaj nga ma question bi laaj nga ma question bi sànq ñun la politique bi ñuy def dafa uuteeg politique c'est-à-dire ñun téyewuñu ay programme naan dinañu def lii dinañu def lii dinañu def lële ñun loolu dañoo bëgg Sénégalais yi seen jëmmu bopp sax ku leen ñëwati di wax mm-hmm. dinañ def lii dinañ def lii ne ko defal ñun ñu gis parce que loolu mooy loolu mooy dëgg aussi mm-hmm. dinañ def lii dinañ def lii dinañ def lii ana li nga def. mais il faut montrer. Hmm. na ci teg baaraam nga ne ñun lii la ñuy def. léegi yow ndax def ngeen au sein du parti loo xam ne nit a na ci teg loxo. mais bien bien a xam. déjà ñun. Hmm. village bi ñuy village bi ma fekk nii nii nii muy tugu nii boo xoolee euh, réseaux sociaux yi. Hmm. di nga gis on avait installé on avait installé des une petite ay ay ay kii ay jardin potager. ñu ngi doon def ñu ngi def pomme de ñu ngi def pomme de terre. waaye jóge nañu fii. dem nañu ba Saint-Louis Bumba. Bumba a centaine de kilomètres. ñu dem aussi installé fa projet boobu noonu. di def di yàlla may ñu ci ndam. Mhm. hivernage bi ñuy dugg nii aussi. Mhm. nous avons un programme. ci loolu la ñu nekk boo duggee ci internet bi aussi. ñu fexe mhm. des vidéos yoo xamante ne. ñu ngi circulé suñu responsable régionaux yi. ñoom dèjà ñoom ñu commencé def ay. ñu commencé ñu commencé di def ay kii ay ay semence mm-hmm. ñoom ñu bay ñu ngi bay gerte mm-hmm. hmm? yooyu la yooyu la ñuy dox nga xam te ne boo ñu laajee dañuy xam ne dañ lay mën a wan ne ñun lii la ñu def mm-hmm. donc loolu tamit maa ngi koy ñaan euh, de passage maa ngi koy ñaan sénégalais yi politicien bu ñëwuti ci yéen ne leen dinaa def nii dinaa def nii dinaa def nii ne leen ko defal ñun parce que naxaate bi moom pour man Mouhamed dafa doy. Mm. te Sénégal yi léegi attention ñoom dañoo yeewu de kenn mënatu leen kooku moo man maa la ko waxee. absolument euh, ñu wax tuuti ci politique maintenant euh, defe naa ni ci ay bés yu génn euh, ki nga xam ne mooy njiitu réew mi le président Macky Sall def discours à la nation renoncé ci li nga xam moom la ñuy wax sa troisième candidature. alors message boobu noonu nan nga ko jëlee en tant que président de parti. waaw Mouhamed loolu wax dëgg yàlla. damay féliciter le président de la de la république. Mm. parce que acte bu rëy la def. Mm. loo xamante ne kenn xalaatu ko woon. Mm. Sénégal moom. yàlla dimbali na ko. génn na ci buntu bu mu war a génn. ba pare attention Mohamed. président bàyyi na Sénégalais yi loo xamante ne. mënuñu koo fay. foofu noonu président permettre nañu tey. Mhm. élection yi ñu jëm ci kanam du ñu am président par défaut. Mhm. Sénégalais yi aussi nañ am fulla fayda. Mhm. ñoom bu ñu toppante ndax dama bokk ak moom dam ko war a jàppale. déedéet nañu xool programme yi nga xamante ne. moom la candidat yi andi. ñu xool ban programme moo ciy jëmale Sénégal kanam. ñoom ñu voté programme boobu noonu. loolu man maa ngi koy lancé Sénégalais yi na ñu wu ci programme mm-hmm. président Macky Sall dimbali nañu mm-hmm. ba nga xamante ne ñun dinañu am temps mm-hmm. liir programme yi nga xamante ne moom la candidat yi andi kon donc responsabilité bi ci bopp électeurs yi lay ak bopp sénégalais yi ci lay reposé wu la responsabilité ci ñoom la ñoom ñoo war a góorgóorlu xool programme xool programme xool programme. Mhm. parce que loolu mooy jëmale Sénégal ci kanam. pour que andi programme boo xam te ne leeroon ko tegi na le. Mhm. loolu moom laa amoon li ma ci li ma ciy wax. alors élection yi di définitivement, defe ni élection yi venue au ubbeeku ci Sénégal parce que élection la boo xamante ne ki ñu doon jàppee ni ci opposition moo ci ëpp doole daanaka bok, bokk mhm. euh, ci li li ñu gisagu mhm. euh, le président moom ci boppam nekkoon que le président sortant du bokk defe naa ni euh, ci starting block bi ñëpp ñooy départandoo mhm. alors lan mu ci nekk taxawaayu parti en avant ci nan ngeen ci demee wala ndax di ngeen ci dem également ah Mohamed question là aussi bu taxawal parti politique

Mm-hmm. nan ngay bokkee. Mm-hmm. lii nag loolu noonu man li ñuy wax ak yow nii ko définir. Mm-hmm. mënu ma xëy xëy rek ne dañuy bokk wala du ñu bokk. parce que wax naa la ko sànq politique or boo taxawalee parti politique organisation la. donc loolu noonu day laaj concertation laaj ay waxtaan. vous comprenez donc. lu ñu waxtaan ba jox rek. Mm-hmm. ñun loolu la ñuy loolu la ñuy def. mu mel ni kon euh, mouvement en avant dafa am hiérarchie euh, comme ni nga ci organisation boo xamante ne euh, c'est pas une seule personne comme ni ñu gis yeneen parti mooy dogal mais c'est tout une chaîne boo xam ne dañ koy topp. voilà le mouvement en avant noonu la ñu noonu la ñu organisé woon mm-hmm. parce que man bëgguma ne man rek maa nekk ci kaw lu mu wax mooy am. Mm-hmm. loolu noonu même borom kër sax bu doxalee noonu këram këram am coow. donc da ngay bàyyi ñëpp ku nekk joxe xalaatam. Hmm. boo xoolee fan la xalaat bu baax bi nekk. Hmm. bu ñu defee synthèse ñu xam ne xalaat bu baax bi fii la nekk. Hmm. ñun on applique ñu xam ne lii mooy li nga xam te ne moom moo war a nekk. loolu man bëgg ma ko dessiné. voilà. alors euh, ñu gis ni yow sa politique da ko basé si benn euh, si quatre points. bis njëkk moom la ñuy développement du capital humain. Euh, mu nekk ponk boo xam ni ponk bu am solo la deuxième bi di agriculture et innovation technologique euh, quatre troisième point ñu ne tourisme et euh, donc quatrième ñu ne transformation individuelle ñu taxaw ci pàcc yooyu d' abord lan moo waral ñeenti ponk yooyu nga xamante ay ponk essentiel la nga xalaat ni boo ci sukkandikoo Sénégal maanaam dinañ ko sukkali mu dem ca kanam Mohamed jërëjëf ci laaj bi hmm. te ñu question boo xamante ne dañ ko war a xam trop te yaakaar naa sax foofu la ñu waroon foofu la ñu waroon njëkkee parce que question bu am solo la. Mm-hmm. gis nga sénégalais yi ñun sénégalais. Mm-hmm. dama ci génne sama bopp dama naan ñun sénégalais. gis yi. Mm-hmm. mooy quatre points yi nga xamante ne bu ñu ko développé ñun suñu panier ménagère dina dina oyof. te tey jii kuy xëy. borom kër buy xëy bu xëyee rek nu muy def. ba taal ci loolu lay loolu wër kon donc quatre points yi jëm naa ne sénégalais yi sax xam nañu ne mhm. bu ñu ko doxalee bu soob yàlla panier ménagère bi dina oyof si ñoom te ñun loolu mooy suñu objectif te objectif bi nga xamante ne fa la ñu jëm yi bu ñu jàppalee ci projet bi nii te ñoom ñëpp ñoom ñu ñëw ñoom ñu adhéré ci ñu jàpp ci mhm. bëgg nañu village bu nekk wala quartier bu nekk mhm. ab projet bi nekk fa te commencé nañ ko déjà comme mottali wuñu lépp. Mm-hmm. dañ ko tàmbale ci dañ ko tàmbale ci régions yi. Mm-hmm. donc quatorze nekk Sénégal yëpp. Mm-hmm. bu nekk dañ fa installé installé benn. te bu soobee yàlla si yëg deux trois mois ci kanam di ngeen commencé gis résultat yi day nekk loo xamante ne mooy ngay teg sa loxo. nga xam ne lii ñun ñoo ko lii ñun ñoo ko def. donc damay ñaan sénégal yi nañ jàpp ci nañ jàpp ci ces quatre ces quatre la là. jii dund dund kër. mënoo hmm. ci génne agriculture. mënoo hmm. ci génne pêche. mënoo hmm. ci génne. tourisme génne tourisme mënoo ci génne élevage génne élevage. donc ñeenti point yooyu noonu dafa nekk loo xamante ne képp ku bëgg a doxal réew te nga tëb ko. jàpp leen da leen na kooku moom téléspectateurs yi man maa ko képp ku ne damaa bëgg a doxal réew mu tëb ñeenti point yi jàpp leen da leen bëggal. ku ko ci dugal nag xam leen ne kii bëgg na liggéey ak

boo xamante ne ñi nga xamante ne eh, dinañ nekk ci àll bi da ngeen ko jagleel alors euh, buñ ne euh, agriculture et innovation technologique mu ëmb lu bëri lan moo waral tey euh, nga génnee pàcc boobu jagleel ko ñi nga xam mooy suñu mbokku béykat yi. voilà donc c'est-à-dire ci jamono yi maam ñun boobu fan béykat la. Mm-hmm. jamono yi ñuy bay. Mm-hmm. ñu loolu la xamoon ay ay ileer. Mm-hmm. lañ doon yooyu lañ doon bayee te loolu noonu. doo ci woon mën a def. lu bëri benn espace rek ngay mën a ngay mën a exploiter exploiter maintenant avec l'innovation ak hmm. la technologie hmm. kenn nit kenn nit hmm. bu amee matériel yoo xamante ne moom lay bayee mën na def ay mën na def ay mën na def ay hectares nag loolu la gis ne bu ñu ko développé day gën a yokk production bi nga xam xamante ne ñu ngi koy ñu ngi koy am. voilà. Euh, alors euh, beneen ponk bi toujours ci wàllu agriculture mooy l'accès à la terre parce que am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi jooy ni euh, souvent su multinationales yi ñëwee da leen di seede li nga xam mooy terre yi ba ñoom pour ñu bay sax problème lay doon taxawaayu mouvement bi nan lay doon ci côté boobu. ma Mohamed. Mhm. kalaasuma kalaasuma kenn. Mhm. mais gis nga baykat yi. Mhm. dañ leen jàppale wu. barki démb. xaw ma démb don doon dem euh, daara jolof hmm. mais gis nga li ma fa romb ci suuf soo xamante nit war na ko mën a bay ko exploité hmm. nit mën na ko exploité hmm. bu organisation le monde organisation revient bu organisation amoon wallahi laa la waatal ni Sénégal fii ak ay weer doo ko xam ne du jéggaani waat rek ay lekkat parce que lu la nit mën ci wax te dund bi yombul waxu la njëriñ parce que moom kese moo tax ñuy sonn dañu lekk ba suur naan ba man yóbbu loolu kese moo tax ñuy suuf am na naaj am na ndox am na léegi nag jàppale leen moom moo def te mouvement en avant moom ci ñun ci loolu lañuy la ñuy dox te ma wax la beneen mbir ci yoon bi damaa gaare hmm. ma ne bi may ma am paysan yoo xamante ne ma courtois lañ tuuti kaf ak ñoom waxtaan ak ñoom. mais mhm. Mohamed Sénégalais yi xale yi bëgg nañu liggéey pour wax la dëgg. Mhm. xale yi bëgg nañu liggéey gis nga ku leen encadré dinañu liggéey. Mhm.

dañu secteur dañu secteur boo xamante ne. Hmm. boo ko omettre. Hmm. ci développement wu dëkk. xamal ne xam la ngay xamoo la ngay def. yi nga xamante ne waroon nañ koo développé. Hmm. bari na. sites yoo xamante ne da doon attirer les ñoom ñu ñëw ñu ñëw Sénégal bari na ñoo xamante ne dañ waroon développé. ñu jàppale les art ñu jàppale les artisanat. ñu ñu exposé yooyu noonu. loolu noonu da daan attirer touristes da daan attirer ñu ñëw. yooyu noonu laa nañu pexe nan la ñuy seet ba gën leen accompagner gën jàppale ci lu mel ci ci lu mel noonu. Hmm. loolu moom mooy gën tax.

ñu daanaka nekk ay jafe-jafe ba fi toll nii pour mu bokk nekk na problème ci li nga xam mooy prochaines élections yi mm-hmm. muy ñuy wax ni euh, bu bokkul dinañ indi jafe-jafe dinañ indi yëngu-yëngu alors yow lan moo ci sa sa sa taxawaay ak sa gis-gis voilà Bourlaye Bourlaye wax mm-hmm. da naan ba da nga naan ma opposant Sonko Ousmane Sonko voilà exactement voilà donc ñu bëri ñu ñu ruumanaat ne bu bokkul ay jafe-jafe dina am exactement man du ma nëbb sama dëgg. Mhm. yàlla moom bindee noonu. absolument chose comme tel. Mhm. waxoon naa ko ci benn benn palaato xaw ma benn interview. Mhm. comme comme maintenant Ousmane Sonko. opposition bi ñoom ñoo ko nax suuflu ko. ah, ah ñoom ñoo ko parce que nii nii gis nga nu mu bokkulee nii opposition bi ñoom ñëpp dañ cee kontaan xam naa nag dinañ ma mer c'est la réalité mooy dëgg parce que xam nañu ne. Mhm. moom bu bokkoon ñoom du ñu laal. Mhm. ñi nii nag ñoom ñëpp dañ cee kontaan. ñii di ñii di expliquer ñii di wax di neexal di ci ay discours. bu ko bu ko ah, mais ñun gis nañu ñoo xamante ne ñu ngi doon ngi doon kaas naan non la Sonko bokk wala da jàpp ne ñoom day ay. taf yëngal la wax jooju noonu. Ah. gémmuñu ko bu ñu sañoon du bokk. bu ñu sañoon du bokk. la preuve en est balaa ngaa xam ne gémmuñu ko gémmuñu lu ñuy wax. Mhm. ñoom. nañ booloo kii ne kii ne dugal naa dugal naa sama tur kii ne dugal naa sama tur kii ne dugal naa sama tur. Hmm. ñeneen nañ tiir ku génn rek kooku mooy nekk candidat opposition bi. duñu ko nangu kon donc ñoom jëmuñu lu ñuy jëmuñu lu ñuy wax. dinaa na nga jàpp duñ mës a ànd. mënul la parce que jëmuñu lu ñuy jëmuñu lu ñuy wax parce que ku nekk yow sa intérêt ngay sa intérêt ngay taat. Hmm. nan laay def ba nekk bitim réew. Hmm. ñoom ñëpp ku nekk loolu ngay loolu ngay taat. Ah, donc ñoom Sonko mu bañ a bokk daf leen a loolu mooy wax ji parce que leer na leen bu bokkoon ñoom du ñu am. Hmm. loolu mooy loolu mooy wax ji. Hmm. li ñuy def nii yëpp rafetal rek dañuy rafetal nii rek. Hmm. mais àggul seen xol man maa ko. Sonko Ousmane euh, ci coow def naa diggante deux mille mars deux mille vingt ak euh, jamono ji ñu toll euh, coow yu bëri am na ci Sénégal d'abord coowam ak soxna si ñuy wax Adji Raby ensuite ñu am un euh, problème moy problème bi dox ci muy ñaari procès yo xamni dox na ci euh, wuy ji ñaari ko ci. alors euh, bo ñu defal synthèse diggante année lan nga ñuy wax ci nga xamantene Ousmane Sonko. Mm-hmm. par rapport ak dayom ak li nga xamni ci procès voilà ban moom moom en général projet eh, depuis bu nekk ci ci yoon mm-hmm. man daaw ma ci bëgg prononcé sama sama sama mm-hmm. waaw mais résultat yi parce que xam nañu déjà euh, ci procès Adji Sarr euh, yoon daan na ko fay loo ko amende procès Mame Mbaye Niang bien bien que dugal nañu li nga xamante ne mooy ay ay ay ay recours mais en tout cas amaat na

Absolument. Euh, dernière cette ça parce que, euh, depuis euh, le y a une mission à Sénégal. L'État à il y a des Entre le mois de mars 2021 et les 1er et 2 juin, au Sénégal, on a apprécié le chaos. la situation était...

politique dañ ne ça rime avec la violence. Mm. te man loolu man dama ko dama koo fond. si mouvement ma taxawal euh, parti bi ma taxawal nii. Mm. muy en avant. Mm. ñun bu ñuy manifesté wu. dinañ andi beneen système boo xamante ne. noonu la ñuy manifesté woo te Sénégalais yi dinañ xam ne ñoom dañuy manifesté wu. duñu fecc duñu dóor. duñu rey. duñu fecc duñu dóor duñu rey. dinañ manifesté wu. Sénégal dina xam ne dinañ dañuy dañuy manifesté alors euh, les benen ponk bi ci toujours ci manifestation yi mooy euh, gestion bi parce que euh, defe naa ni dañu am li wax gestion de crise mm-hmm. bu njëkk ba di en mars 2021 ak yi nga xamné am na au mois de juin passé yow ci sa analyse ndax japp nga ni ni ko ni ko gérer baax

voilà et document bu dossier bu nekk yoon moi, man moom daaw ma ci bëgg prononcer quoi man j'aurais préféré bien vrai nga wax ma problème de développement nan la ñuy def ba dëkk bi jóg mm-hmm. vous comprenez mm-hmm. mais tout ce qui touche la justice mm-hmm. man je ne touche pas absolument parce que du ça m'a, sama du domaine absolument mais euh, vous êtes président de parti euh, vous avez votre mot à dire sur l'évolution du pays c'est pourquoi C'est pourquoi ñu laaj la voilà loolu tax man pourquoi ne tax dinañu andi système de manifestation yoo xamante ne. nit ñi hmm. dinañu xam ne ñii dañuy manifesté wu. Hmm. mais duñu ko defee comme duñu ko defee comme noonu. Hmm. voilà parce que booy seet ñii ñàkk nañ ci seen ñàkk nañ seen i seen i nit. ñii ñàkk nañu seen i seen i matériel. vous voyez nous avons eu des pertes des pertes humaines. yëpp mënoon na mënoon na ñàkk. waaw yooyu yëpp mënoon na ñàkk absolument mais feragul parce que euh, je pense que waa Pastef toujours parce que ñoom leader ñàkk a li nga xam mooy euh, le jëm muy son co, ñoom nee nañ benn candidat lañ amuñu plan A plan B mm-hmm. alors ce euh, su seen candidat bokkul dëkk bi dina yëngu mu mel ni dañ jëm ci violence mm-hmm. alors yow Euh, toujours rek parce que en fait li tax tay émission bi euh mënul ñàkk tay askan wi xam. faut féete euh, parce que euh, souvent dañuy wax ni parti bu judo soit day nek parti bu bu accompagner la moi moom nek parti d'opposition donc lolu tax tay ñu waxtaan pour définir li nga xamantene moy euh ligne directrice bi nga xam ni moom la parti en avant di doxé mm. alors ci situation bobu ñu jëm. Euh, yow lan moo ci nekk sa sa jàngat. voilà gis naa ne ñaari question nga nga déglu Dior. absolument voilà. gis nga parti Pastef le président Ousmane Sonko. Mhm. man si j'étais à sa place. Mhm. bu fekkee projet bi mu yor jëm na mhm. man nag foofu laa wuteeg nit ñi. gis nga bu fekkoon projet bi mu yor jëm na projet te man jëm naa ne na projet bi. te li ma lay wax nii na nga ko noté nga denc. bu dee jëm na projet bi na taxaw ne diw mooy sama candidat parce que moom xam na ne mënul bokk. ça c'est ça c'est clair. mu mënul mënul bokk. parce que yoon li mu tracé moom mënul bokk. Hmm. c'est très clair même ces même ces avocats wax nañ ko boo leen xoolee vidéo yi nii. Hmm. wax nañ ne Sonko mënul bokk. Hmm. bu fekkee projet bi mu yor jëm na ko te man jëm naa ne jëm na projet bi na wut candidat mu ne diw mooy candidat parce que. vous comprenez. ñoom tamit ñoom ñu jàppale kooku noonu jàmm ne jàmm man de loolu laa ci loolu laa ci loolu laa ci bi loolu it daa koy conseillé mhm. na wut candidat mu ne diw mooy sama candidat mhm. loolu mooy yoon mhm. waaye léegi nag ñu gis ni tey yaa ngi wax euh, na wut sama diw mooy sama candidat Macky du bokk euh, ñu jékki-jékki gis mu mel ni Sénégal mel ni sabar gu tas ñëpp ne candidat lañ Euh, est-ce que loolu sérieux na ci dëkk bu mel ni Sénégal tey ñu ne euh, ñu ngi jub élection présidentielle presque c'est une cinquantaine de candidats déclaré seen euh, candidature. mooy li ma la wax sànq rek. Mm-hmm. Sénégalais yi président Macky Sall may na leen sens. Mm-hmm. boo xamante ne lañ xool ban programme moo baax ci Sénégal. Mm-hmm. ñoom ñu topp ko man bu ñu nekkoon cent candidats. comprendre programme bi moo am moo am solo. homme politique tamit bu ñu jëmee seen bopp. bu ñu gisee ne seen programme yi ñoom ñoo ñoo nuroo ñoom nañ booloo. Mm-hmm. ñu ne kenn na kenn na jiitu. Mm-hmm. bu fekkente ne tamit jëm nañu bu baax a baax li ñuy wax. Mm-hmm. du choix bi du choix wu personne bi mooy mooy mooy am sens mais programme bi mooy am mooy am sens. parce que programme buñ ko tegee. pour le pour doxal programme bi lu yomb lay lay mais monsieur est-ce que sénégalais day voter sur la base de programme également parce que defe naa ni euh, souvent ñu gis des candidats qui présentent des des programmes béton mais malheureusement buñ demee euh, au soir des élections bu leen compter seen i seen i vote euh, daanaka li ñu am du bëri ci score. Mohamed. Mhm. dama la koy waxaat gis élection élection yi en 2024, mhm. les sénégalais am nañu fulla amu fulla bu ñu gisulee programme bu leen doy nit mënul muus mucc ba ñu voté ba ñu ba ñu voté la Sénégalais yi président Macky Sall may ñu leen sens boo xamante ne ils vont lii programme yi nga xamante ne moom lañ leen di moom lañ leen di proposé kooku man maa la ko wax tey mën nga ko noté. Mm-hmm. waaw am nañu sens boobu noonu. dinañu voté te ci loolu laa leen di woon nañ topp programme. Mm-hmm. ñu xool fan la seen intérêt nekk ñoom ñu doxal ñu doxal loolu te bu ñu nangu ay dig. Mm-hmm. ay digaat. bu ñu ko nangu. Mm. képp ku taxaw ne jox leen ma. Mm. ne ko lan nga commencé def ñun ñu xool ku deful dara bu ñu ko jox dara. Mm. kooku man maa ko. Euh, ñu gis ni euh, ci élection yi depuis élection locale yi candidats na tendance bu bees bu dessiné wu. Euh, parce que boo xoolee ci élection locale quasiment li ëpp ci ñi nga xamante ne ñoo toog ci mairie yi en général du ñu ay politiciens de renom soit ay entrepreneurs lañ ou bien ay hommes de médias wala yu mel noonu daanaka boo xoolee après ñoo émerger génn occupé li nga xam ni mooy kii bi ci élection yi nag am ci ay candidats yu bees ay opérateurs économiques ak ñu mel am pouvoir ay Serigne Mboup ak ñu ni mel yoo xam ni ay candidats Mamadou Ibra Kane est-ce que yow gëm nga ni un euh, vent nouveau à souffler sur le Sénégal euh, sénégalais aussi ñoo gëm ni dañoo soxla changement départiru ci li xam ne moy les politiciens traditionnels pour am ay nit yu bess voilà donc vous avez vous avez vous avez vu. Hmm. <laughs> donc vous avez vu même yow sax defal nga sa observation sénégalais yi seen jum bopp ñoom ñu commencé yeewu ñu commencé xam kan moy homme politique ñom ñu ngi leen commencé ségg di leen tege de côté. Hmm. xam ñan ñoo jóg pour liggéey. Hmm. moo tax sànq man la ne. Hmm. ñoo ils sont devenus libres les Sénégalais. ñun dañoo mët maanaam ñor nañu. comme xam nañu bu baax a baax fi ñuy def seen def seen tànk. te jii demal commune commune Serigne commune Serigne bu. Kaolack. ah. demal nga demal demal nga xool li mu fay li mu li mu fay mm-hmm. loolu lan moo lan moo ko may moo xamul dara ci politique c'est pas un homme politique. Mm-hmm. waaye mais tey jii li mu doon def. moom loolu lay ñëw loolu la ñu war a teg. tout à absolument alors euh, président mu mel ni fi ñu toll nii nag waa F24 defe naa ni euh, ñi ngi woote ñoom it rassemblement donte ni rassemblement pacifique la alors euh, ñii nag nee nañ F24 amatul sa raison d'être parce que ñoom seen xeex moo nekkoon la troisième candidature yow ban position nga am ci loolu. par rapport à l' existence de M24 ak récemment bi nga xam ñu ngi koy woote jëm euh, li nga xamante ne mooy euh, la libération peut être ñoom li ñu tuddee les détenus ak yow ndax détenus politiques nga leen jàppee également. man mii jàppee ma mhm. ma du ma nëbb samay mhm. mhm. parce que ku ñëw di daj ay magasin di ay ay détenus du ndax corona, naa par exemple nga ne président Macky Sall warul bok ñu téye tëj kooku noonu dëkk politique parce que li mu wax ci politique la ko politique la ko rek mais ki nga xamante ne dafa dem dajji ma magasin wu jàmbur yóbbu bagage ba ñu téye kooku noo ko mën tudd kooku noo ko mën F24 man su ma rassemblement yooyu noonu ñuy def nañu habitué ñu programme ñu wax ni lii la ñuy def. Mm-hmm. commencé nañ ci. Mm-hmm. fii la ñu commencé fii la ñu bëgg mm-hmm. ci benn wax rek di ko wax topp ci benn wax rek di ko wax. dèjà présent ni la bokkatuma loolu ñu wax. léegi nañ andi programme ñu ñu teg. au moins sax ñu permettre Sénégalais yi ñu xam ne ñoom lii la ñu xam. y aura beaucoup nekk foofu noonu. man je suggère que ñoom bu ñuy ñëw ku nekk am programme am. incha allah bu ma toogee lii laay def incha allah bu ma toogee lii laay def incha allah bu nañ am motu ñu ne yow comme nga ne boo toogee lii nga def war ñu ñu gis. Hmm. parce que am dese nañu sept mois ci kanam. Hmm. war ñu ñu gis. man ñemewuma la laaj parce que li ma dégg léegi euh, ñemewuma la laaj ndax euh, yaakaar nga ni F24 war na mën a fexe ba fédérer opposition bi autour d'une seule personne euh, ndax nee nga léegi yow mosoo gëm ni opposition bi dinañu dinañu booloo donc day wane ni ab am na foofu. mënuñu mënuñu booloo parce que ku nekk sa intérêt bopp ngay ngay dox xam nga loolu moom moo fi loolu moom moo fi comme dafay baax. ñu ñuy waxante ñu ñuy waxante dëgg ñoom képp ku yëkkati discours rek nan ngay def ba def pouvoir loolu kese la. te loolu mooy mooy dëgg bi ñoom ku ci wax rek loolu dong ngay jéem a nan comment je vais faire pour récupérer le pouvoir ñoom loolu dong loolu dong la ñuy loolu dong la ñuy wax maintenant wax naa ko sànq Sénégalais ñoom ñoo war a gën a yokk seen taxawaay képp ku ñëw taxaw naan leen lii ne leen wan ñu li nga def. parce que man moom loolu moom zi kii quoi dama damaa jàpp ci loolu noonu pour mu deme noonu. Mm-hmm. képp ku ñëw taxaw ak yéen di wax ne leen ko wan ñu. Mm-hmm. ñu gis mais bu ñu gisulee bu ñu ko topp. Mm-hmm. Ah, Mhm. alors euh, prési euh, lii nag moom dafa am euh, laaj la boo xam ne bi may ñëw la ma ko askan wi yóbbante mooy dañ bëgg xam ñoom exactement en avant ndax ci opposition bi la bokk wala ci mouvance bi wala nan lay taxawee. man jiwuma opposition. Mhm. jiwuma parti au pouvoir. Mhm. xam nga lan laa jëm. bi ma yor nii. moom laa jëm moo tax may woo opposition. di woo pouvoir. pour ñoom ñu ñëw jàpp ci. parce que yooyu man damaa jàpp ne yëfu caaxaan. yow defar Sénégal nga woote. nañ defar Sénégal lan mooy hmm. opposition lan mooy pouvoir coow xëcc kii xëcc opposition pouvoir je donne un exemple. Hmm. man maay man maay opposition yow yaay pouvoir. Hmm. boo nee table bi niñ euh, ko tegee baax na. man a table bi niñ ko tegee baaxul. kon kan lañ kañ lañuy kañ lañuy teg attaay ci kaw table bi ñu naan loolu mënul nekk. moo tax man jëw ma loolu man li gëm mooy nga ne ma table bi niñ ko tegee baax na. ma ne la baax na de bàyyil ma andi kii bi ma lal ci kaw. Hmm. ah bàyyil ma andi napp bi ma lal ci kaw. Hmm. keneen dem andi attaaya bi teg. Hmm. keneen dem andi lekk bi teg comme ça ñun ñu mën koo utiliser. tey jii nii ku nekk da xëcc. même boo defee lu baax sax opposition bi day taxaw ne li nga def baaxul même opposition bi bu waxee loo xamante ne arrange na arrange na réew mi sax état bi taxaw ne li mu wax baaxul. moo tax man géew ma opposition. géew ma pouvoir. man li ma gëm mooy comment on doit faire hmm. pour nit ñi lekk ba suur nit ñi naan ba màndi dépense bu woyof hmm. ci borom kër yi man loolu laa gëm moo tax man la sànq ci njëlbeen bi hmm. ñun foo mën di bokk gëmuñu gëmuñu appartenance politique foo mën di bokk ñëwal ñu ngi liggéey Sénégal jëm kanam lekk bi yóbbu naan bu yomb. Mhm. dépense bu mhm. euh, ñu tëj volet politique te waxtaan ñu si dialogue bi. Mhm. dialogue national bi nga xam ne am na fii am na ñoo xam ne nee nañu moo jur li nga xam ne mooy tax njiitu réew mi euh, dellu ginnaaw ci troisième candidature bi euh, am na ñoo xam ne dañ jàpp ne rek ndajale woon boo xam ne dañ ko daje woon ngir puukare yow ban jàngat nga am ci loolu. li nga xam mooy dialogue bi ñu génn ak aussi xëy na boobu lancé go woon

sens boobu man xaw ma dañoo soxore Sénégalais yi xaw ma nu mu demee noonu xam nga coow am ni yëpp bu fekkonte ne ñoom ñëpp demoon nañu toog. Mhm. toog waxtaan. solution wu mën na am. Mhm. opposition bi peut-être am na loo xamante ne waroon na ko waroon na ko mun a wax. Mhm. moom mu arrangé parce que man affaire yi man dama ko gëmul sax. opposition ak pouvoir man gëmu moo tax ma ne bi mu wootee dialogue bi ñëpp ñoo waroon dem ñu toog nu ñu waxtaan ñu xool Sénégal nan la ñu war a def ba mu jëm ba mu jëm kanam. voilà donc je pense que ñoom bu ñu demoon. Hmm. kon solution yi ñu am yi dinañu am des solutions meilleures. Hmm. man jëmoon naa naa loolu. absolument hmm. alors euh, dañuy wax ci agriculture dañ ciy delluwaat parce que dafa bokk ci base yi nga xamante ne moo taxawal euh, li nga xam mooy en avant euh, président Macky Sall dafa woto woon ay jamono ci ginnaaw retour à la terre.

lay liggéey tey ñu delluwaat ci biir dëkk yi di wut ay terre pour bay euh, loolu euh, retournement bu mag la alors jàngat ban ngay def ci loolu voilà jàngat bi ma ciy def mooy bu ñu taxaw ci sensibilisation bi nga xamante ne ñu ngi koy def mhm. c'est-à-dire sensibilisation bi dañ ko war a accélérer mhm. ñu jël leen wax lan moo nekk ci mbay ñoom ñu xam ko bien vrai que xam nañ ko mhm. mais liñ leen ko gën wax ñoom ñu xam ne dëkk nu muy développé sans mbay hmm. loolu moom bu ñu ko dugalulee suñu bopp hmm. xamal ne suñu ñu bëgg àgg mu ñu fa hmm. mais loolu noonu sensibilisation bi moo war a moom la ñu war a gën a intensifier vous comprenez ñu dugg ci population bi expliquer leen ko comme ñun nañ koy defee déjà vous comprenez di leen di leen di leen former di leen wan nan lañ koy nan lañ koy defee wax naa ko sànq la population xale yi wallahi liggéey rek la ñu bëgg gis nga ku leen jàppale. Hmm. ñoom ñu liggéey loolu man mii maa la ko wax. Euh, dëkk bi prési insécurité bi tamit defe naa ni euh, wala ñaane fi lool hmm. euh, defe naa ni. tout récemment am na benn conducteur de Jakarta boo xamante ne jël nañ bakkanam hmm. am na keneen aussi koo xamante ne fay la génne àdduna hôpital régional mais daanaka ci ab choc bu xaw a doy waar la ñàkk bakkanam naka noonu aussi agression vol alors loolu aussi am ngeen ci wàll ci nan ngeen fas yéene taxawee voilà donc insécurité bi moom euh, booy seet bari na trop. Mhm. man mii wax ak yow nii donc. Mhm. dal na ma ba sama biir ba sama biir mhm. kon xam nga ne bari na. ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo yore ñoom ñoo yore wàll boobu noonu. ah ñu ngi leen di ñaan. ñoom ñu gën a yokk. seen i matuwaay ci ci loolu noonu. sécurité moom nguur rek moo ko yor. moo ko yor. kon donc ñun dañ koy ñaan mu gën a yokk mu gën a yokk surveillance bi vous comprenez ñu mm-hmm. gën a jigee population bi aussi mm-hmm. pour mën leen a gën a mën leen a gën a protéger mm-hmm. te moom côté boobu loolu rek la ñu amoon lu ñu ci parce que domaine état la très bien moom moo yor moom moo yor sécurité moom moo war a assurer suñu sécurité tout à kon donc moom na ko def alors ban message ngay lancé à la jeunesse euh, vous êtes jeune euh, vous avez lancé votre parti en avant Euh, ban message ngay lancé jeunes yi. voilà man message bi may lancé jeunes yi du gudd sax. Mhm. parce qu'ils sont tous responsables. Mhm. wax naa ko sànq bëgg nañu liggéey. Mhm. gisuñu ku leen jàppale. mais loolu noonu. bu mu tax bu ñoom ñu découragé wala ñu def naqas bi naqas du noonu. nañ xippi seen i bët. ñi ni bu nekk dina jóg ñëw ci yéen leen korom jox leen dix mille mhm. jox leen cinq mille jox leen vingt mille mhm. dig dig dig mais li ma leen di ñaan di leen lancé message bi ñoom nañu xool les programmes yi nga xamante ne mhm. moom la politicien yi ñëw leen jox te képp koo xamante ne andi na leen programme ne leen ko ñun dañoo bëgg nga commencé liggéey daar daar ñun ñu xool la ngay def lan la mais

wax na ko euh, ci wàllu programme mais également li nga xam ne décliné na ko ci ay ambition yi nga xamante ne euh, muy euh, à Thiès à Dakar mais également à l'intérieur du pays am na ko pour les populations mais également sa clairvoyance ci li nga xamante ne mooy ay points sur le plan politique comme sur le plan administratif li nga xamante ne yëpp bëgg na ko teg ngir Sénégal defe naa ne lii benn la ci waxtaan yi nga xam ne war nañ ko seek ñun ak moom ngir yaatal bu baax a baax li nga xam mooy méwetu parti bi di en avant li ñu def rek président mooy rafetlu bu baax dalal bi daal di lay bàyyi mooy xëy na nga joxe kàddu yu mujj yi. voilà donc moom moom dama leen di jaajëfal d' abord yéen ñu waa euh, la Deffeff euh, la Deffeff TV euh, occasion bi nga xam te may ngeen ma ko pour mu mun jàkkaarloog Sénégalais yi. suñu mm. militant ak suñu sympathisant. Mm. waxtaan ak ñoom. Mm. parce que c'est à travers les réseaux sociaux. nga mun a profité. jàllale message bi nga xamante ne bëgg nga koo bëgg koo jàllale. te am naa yaakaar ne jeunesse bi nga xamante ne moom lañu moom la ñu am population bi nga xamante ne moom la Sénégal am tey am na différence trop bi nga xamante ne moom lañ ci fekkoon année yële année yële mët nañu ñor nañu xam nañu bu baax a baax fi ñuy teg seen tànk. Mm. loolu moom man maa leen ko wax maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. di leen sant di leen gërëm wasalaam. Euh, mu nekkoon euh, kon euh, le président du parti en avant ñu koy jaajëfal bu baax baax ci dalal bi nga xamni dalal lañu ko fi ci makana mais également jaajëfal ko ci dal gi ak tey gi di leen rek xamal ni mom suñu nit la mais également ñu gis li nga xamantene moy liggéey bi nga xamni mu ngi koy def li ñu def nak moy ñaanal ko comme niñ ko defee ak su ay moromam yi nga li Sénégal suñu borom jox réew mi bu ko Sénégal euh, bu gënul également suñu borom la gënal ba mu gën mu Sénégal jëriñoo ci euh, yéen tamit ami euh, téléspectateur ñu ngi leen bu ci émission apostrophe ci réglage mais dorénavant toutes les semaines retrouvez votre émission apostrophe sur la meilleure des chaînes avec votre présentateur votre honorable serviteur Mohamed Diop semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.